آه يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من ليبي إن أوزاري ثقة بقي نيجي سانت يالا دي جاكارلوك يين di woo Sénégal yëpp ci seen bés seen bésu mbokk seen soppe seen xarit Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour mi nga xam ni lépp ñëpp la woon wax naa ni du woon Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour jullit yi rek waaye catholique yi ak mboolem koo xam ni bokku leen diine wala bokku leen tariqa sëriñ Mansour nga ci biir nga ci biti ñi ngi woo ñëpp di woo jullit di woo catholique di woo ku ñu bokkal tariqa ak ku ñu bokkalul tariqa le 30 mars incha allahu taala bëgg nañu 9h. fekk ñëpp Tiwaawoon ci ndigalul sunu xalifa bi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si al maktuum ak ay rakkam sëriñ Abdou sëriñ Mbay si Mansour sëriñ Seydi Maay si Maodo ak suñu turu kilifa sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Mansour ñu toogal ko fii ñu ngi woo ñëpp di woo borom réew mi ak soxnaam di woo mbooleem dawaayir yi organisation yi bàyyiwuñu kenn seen mbir la seen bés la. ndax Seydi Mouhamadou Mansour si. yal na yàlla yokk leeram fa mu nekk euh, dafay koo xam ni damay wax ni ndaw lu guddi la lu waaj làmb daj foog ni moo jël lépp ñëpp la fi nekkaloon ñëpp la njaboote woon Sénégal rekk ko ñoroon l'islam rekk ko ñoroon njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ak mbooleem kuy jullit bokkoon nga ci njabootam ba tax na lii ñuy def dañ ci woo réew mi yëpp ndax ku ci nekk am nga ci cër am nga ci wàll loo xam ne di ko mën delloo Seydi man suur si bés boobu la nag yëg nañ ne ku nekk ngi ci biir heure yi nga xam ne moom lañ daan am ci bakku daayira bi di ziar ren ji heure yi dafay changé ndax dafa am yu nga xam ne nam mën nañ koo def ci bés ba te dañ ko bëgg a teel a def ci bés bi ndax bés bi gën euh, dafa xat lu dale 9h bu bëggee dañ am programme boo xam ne ci 9h lay war a mën a dale kon ki nga xam ne tey kii da ko bëgg a na heure bu nga xam ne war na ko mën a bàyyi xel. te léegi heure bi dafa changé fa tabarakallahu mu bëgg ngeen teel ko bàyyi xel am na fu mu daan tambale ren ji fu ko gën a avancé lay tàmbalee te mooy 9h ba bu ngeen dee liir ci suufu euh, programme bi di ngeen ko ci gisaale incha allahu taala wasalaamualeykum man rahmatullah baadi mandinkolu ana kam moylal mbal kumandila ɓe mbato ɓe mi yaalon sawo san kake kake gimalem mi yaalon ko lonnalla lonnalem ni nataya tabarakallahu yatra i boto kenseŋoleŋ a si fandi boto la inin i inin barako fo ye futaya wo beŋo wo le siita nak wo keta lunjimaal ti ñiŋ karotil tan sabo inchallahu birin kasamas fo gambi fo jine bisaw joola balanta baynunke mandinka few wo fe ne yatara a kana janne ay londoñini tiwawon jaŋe be kumandi alasine dangu moroto yala wala mo jumaate seydou mouhamadoul mansour mi yalon ko lonnal la lonnalen o kuma kan ɗo kon si walla sindi badimol be ma mbokki safeji buñi a bu jen ɓe ah, no ziyare bo hamtume ziyare darine ak hommage ɓe ɓo haɓɗene signe mansour a ah, signe mansour nak asriño safenci safenci ɓe si dowode on comme signe mansour hewlera safe jeen ak siine magi wan ci turu saafen ci ak sin ten banndiraaɓe sehiilaaɓe hettotooɓe miɗen on nodda appel manduɗa ko waɗante hommage cheikh seydou mouhamadoul mansour sy radiallahu taala anhu borom daarji wondude dairatu muntadibin li taalimi ulumi din mars atiwa on à partir 9 heures miɗen nodda banndiraaɓe julɓe fof cheikh mouhamadoul en wonduno jaam ɓuri tengtude haalpuraar en te cheikh mouhamadoul mansour kono nee na annabiyu awla bil min anfusihim te cheikh mouhamadoul mansour si ina la yatno cheikhul kamil fi qawmihi ka nabiyi fi ummati onoon on ɗon garat jogino a banndiraaɓe fof miɗen on nodda aron tiwa won a 30 mars ɗum fof séréer ina wesimna noon ka jeg besna ando naye ka i mbogno organisé pour serigne mansour si pour fi in hommage xu garna maaga nak inchallah xano an man serigne ten ref u an serigne mansour a jangle a serigne mansour a fi'a pi'a mbaax ka andoona yee i mbaagga maaga jang dara ko xane kan i njëriñun no dundu in bés baa ngoog di bésu kër Cheikh Sidi Alhaji Malick radiallahu taala anhu ak xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar Sy xalifa bu tedd ba radiallahu taala anhu ak rakkam yëpp Seydi Mouhamadou Mansour nag wul nu koy présenté 1925 daal ba ba mu fi jógee ñëpp xam ne kuy Seydi Mouhamadou Mansour ca xam-xam ba ca wax ju rafet ja Seydi Mouhamadou Mansour yan nu yàlla tax ci barke moo tax nuy wax ndax Sénégal fay ñëw Afrique yi moo tax ñi xam ni noo yëpp nit ñi nar xam ne ay doom aadama la nu yëpp ca ndigal lii jógewul ci kenn de ku Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu jox ndigal rakkam yi rakkam yi jox ndigal doom yi commencé ko Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Seyd Mouhamadou Mansour ñoom ñëpp nu àndandoo nag jox Habib ni ko yow yaay coordinateur bi waaye nag ndigal li jógewul kenn lu sunu mag sunu sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jaar ci Seyd Abdou Aziz Al Amin porte parole ak Sidi Boubacar imnu alhaji Mansour ak Maodo si imnu alhaji Abdoul Aziz kon nag <laughs> gars yi bis bi dina rëy lool ñun ñëpp ñu daje Tiwaawan ca kanamu maam Cheikh Seydi alhaji Malick ca kanamu Seydi Boubacar si xalifa bu tedd ba ñun ñëpp nag ñu àndandoo nag déglu ci Seydi Abdoul Aziz Al Amin ak njaboot bi.